sama situation ba ñu mënoon ay radiation yooyu du du ministre moo ko wax mais lu ñu dégg ci presse bi la rek ay nit yu doon wax seen xalaat mais dafa nekkoon benn genre xoqatal euh, man njëkkuma nekk secretaire général bi nga xam ne duñu teg duñ ko oyofal ay ay ay ay situation ñii ñëpp ay secrétaire généraux lañu ay ay secrétaire généraux gi nii boo nekkee secretaire général dafa am ay textes yoo xam ne duñ lay may nga mën a dem nekk say mbiru syndicat justice nag xëy na mi ngi doog am secrétaire général bu koy def ndaxte ñun dem nañu ba gis ne booy jiitee syndicat mënoon ànd ak liggéey soit da ngay liggéey sànq syndicat bi soit ngay nga nekk ci syndicat bi bàyyi liggéey bi ñaar koy benn ci mën a am texte yi nga xam ne ñoo téye organisation internationale yi ak loi wu Sénégal bi reconnaître na ko donc justice ne doit pas faire waru nekk benn exception xëy na nag ña doon jàpp ña doon jàppale ministre de la justice ñoo foogoon ne loolu bu ñu ko day nekk ab xoqatal boo xam ne day tax ñu bàyyi xeex bi mais loolu moom euh, ku xamul dara lañ koy naxee te ñun am na yàlla am na lu mu def suñu bopp yi